بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني ñaareelu xadiis min أحاديث الأربعين النووية قال عن عمر بن الخطاب jël nañ ci Seydina Umar yal na Yàlla gërëm ko qaala baynama naxnu juluusun cinda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daata yawmin id talaca calayna rajulun shadiidu bayaadi thiyaabi shadiidu sawaadi shacri baax na bu dee shecru wéy lay doon Seydina Umar mu ne baynama naxnu jamono ji nga xamee ne nun saxaaba yi mm-hmm. juluusul way jékki lañu mm-hmm. inda rasulillahi fa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin jëmmi bés mm-hmm. is ci saase rek talaa alayna la yegsi ci ñun rajulun waay waaye joo xam ne nag shadidu bayaadi thiyaabi aji ji weexu yére la shadiidu sawaadi shaari aji tat ji ñuulaayu karaw la muy ñaari màndal la laa yuraa alayhi giseefut ci moom atharu sëhëri jeexitu tukki te walaa yarifuhu min ahadin kenn tunun xamu ko waaw lii mi ngi lay woon observation ak bàyyi xel gi saxaaba yi bàyyi woon xel lépp lu wër yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñu ngi ci jamono joo xam ne mm-hmm. ku mel nii mm-hmm. kuñ war a xam rekk la war a doon ndax du jamonoy avion du jamonoy oto te fi ñu dëkkit àll la boo fay ñëw di jaar ci ay montagne ak i suuf ak i désert yoo xam ne mënoo ñëw te pëndoo mënoo ñëw te tilimoo ñoom ñu toog rek gis waa joo xam ne yére yaa ngi weex tàll mm. dara tilimut ci mm. karawaay ngi ñuul kukk mm. pëndut dégg nga jaxasoowut benn jeexit buy wane ne kii dëkkut fi new ci moom te xam nañ ne dëkkut fii ndax kenn ci ñun xam ko loolu jaaxal ñu xataa jalasa ba mu jékki ila nabi yi ci yonantu sallallahu alayhi wa mu dikk ba jékki ci kanam yonantu bi fa asnada mu wéet rukubatayhi mm-hmm. ñaari bëti hoomam yi moom waa ji mm-hmm. ilaa rukubatayhi jëm ci ñaari bëti hoom yi yonantu sallallahu alayhi mm-hmm. mu ñëw ba sukk ci kanam yonantu bi ba ñaari bëti jege ñaari bëti yonantu loolu it ngi jàngale ne kuy wut xam-xam fa war a jege ki koy jàngal ngir mu dégg li muy wax su ko soree mën naa am am lu ko raw wa wadaa teg kaffayhi ñaari tenxam yi ala faxidayhi ci ñaari luppi boppam yi moom loolu it mi ngi wane tegginu taalibul ilmi wa qaala mu ne yaa muhammad ay yonentu muhammad sallallahu alayhi ay yow muhammad axbir ni xabaare ma an il islaami xamal ma li xamal ma lislaam hmm. fa qaala rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam tontu hmm. Hmm. mooy nga seede an laa ilaha illa allah ne yàlla rek a yàlla maa ngi daan nañ ko firee laa ilaha déet buur bu jaamu jaamu gi di jëriñ ñàkk gaa jaamu di lor illa allahu ndere yàlla loolu mooy dëggit wa anna muhammadan ak daal muhammad hmm. rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi hmm. ponk bi njëkk ci ponki lislaam hmm. yii juróom mooy seede ne yàlla rekk ay yàlla waaye muhammad ay ndaw seede ne yàlla yàlla du wér mukk fekk nangu woone moo yónni yonant ndégam fekkee nga yonant sallallahu alayhi ñaareel bi watu qiima nga taxawal solaata julli julli juróom ñetteel ba watuuti ya nga joxe zakaata asaka su fekkee am nga loo mat nisaab te charte ya dajee ca wata suuma nga woor ramadaana weeru koor wata xujja nga xaj albayta néega yàlla bi in istataata ilayhi sabila ndem mën ko in istataata ndem attan nga ilayhi jëm ci moom sabila naaw qaala mu daal di tontu moom waa ji sadaqta wax nga dëgg qaala sayidna omar wax fa ajibna lahu ñu yéemu ci moom lu tax yasaluhu moom mooy laaj wa yusaddiquhu mooy confirmer ni li wax dëgg la kii laaj mën ta xam li muy wax noon la wala du noonu waaye kii laaj te buñ ko waxee mu confirmer kon laajut ci am na lu nekk ci wala laaj bi am na lu ca laxasu man damaa ñëw di laaj fan la yoonu marché bi hmm. nga ne mais fii la hmm. ma ne la wax nga dëgg hmm. loolu li muy firi mooy li may laaj lu ma xam la wala boog am na leneen lu ma ci jublu ndax man comme xaw ma yoonu marché bi mënumaa xam ndax waaye ji li mu wax dëgg la am déet damay jël damay jàpp li mu wax rek topp yoon wo su ma yeggee ba ca marché ba nag mën naa wax ne kon waaye ji wax na dëgg waaye demaguma ba pare ne waaye ji wax na dëgg kon dafa mel ni am na lu ma xam ci li ma doon laaj qaala mu ne moom euh, tumuraanke gi mm-hmm. fa axbir ni xamal ma bon ani liimaan mm-hmm. fa axbir ni xamal ma ani mm-hmm. liimaan liimaan moo luy liimaan qaala mu ne ko an liimaan mooy nga gëm billaahi yàlla gëm ne yàlla bind moom rekk xeeyoo jaamu ni melit moom rekk ko mel ñetti meloo bokkut la moom rekk a bind moom la ñuy def taqsim mm-hmm. euh, tawxiidu rububiyya mm-hmm. ak tawxiidu luluhiyya ak tawxiidul asmaa wa sifaat yi di mm-hmm. ah, yàlla moo bind moom tamit moom rekk a jaam moom rekk a xeew jaam ni melit moom rekk ko mel mooy ay meloom ak i turam kenn fekk ko ci laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir wa malaayikati gëmi malaakaam ay mbindeef la yàlla bindi ci leer hmm. duñ lekk duñ naan duñ nelaw hmm. mënuñoo mooy yàlla hmm. lu leen digal rek la laa yaxsuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun nga déggee ci ne mi euh, suñu mbokk yow de chrétiens yi di woowee the fallen angel malaaka mi daanu iblis duuloon malaaka alquran wax na ko jinne la kaana min al jinni fa fasaqa an amri rabbihi afa tattaxiduunahu wa durriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu nga gëm yàlla bindi malaakaam mm-hmm. ñu nekk ci service am duñ doomam it mm-hmm. ni ko yéeféeri Màkka daan waxee mm-hmm. déedéet duñ doomi ni mu ko waxee Mm-hmm. Eh, suuratu saad asṭala albanaati ala albaniin mm-hmm. mm. maa lakum kayfa taxkumuun mm-hmm. ñoom ñoom nee nañu malaaka yi doomi yàlla yu jigéen lañ mm. waaye loolu yàlla ne ah loolu de du dëgg uh-huh. fastaftihim ali rabbika albanaatu wa lahum wa lahum albanuun am xalaqna almalaikata inaasan wa hum shaahidun alaa innahum min ifkihim la yaquluuna walada allahu wa innahum la kaadibuun asqafa albanaati ala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun afalaa tadakkaruun am lakum sultaanun mubiin faatuu bi kitaabikum in kuntum saadiqiin wa kutubihi gëm tamit téere yi nga xam ne ñoom la yàlla wàcce ci ay yonantam xadiisu abu darrin yonentu sallallahu alayhi wa dana ca wax téere yi nga xam ne hmm. sama borom tabaraka wa taala na ko ci ay yonentam hmm. téere yee dana ma téeméer ak ñeenti téeméer hmm. ak ñeenti téere waaye yépp a ngi daje nag ci tawraat ak linjiil ak zaboor ak furqaan yépp dajee ci furqaan ci alquran kon boo jàngee alquran mel na ni jàng téere yépp mm-hmm. la tàqale ko woon ci yonent yi ak ci seeni téere yépp a ngi ci mm-hmm. yonent ak téereem mm-hmm. sallallahu alayhi wa gëm téere yi xataa yi nga xam ne ñoo fi nekk tey dañ taxarif lañ dañuy gëm ne ca cosaan yàlla leen wàccee waaye nag gannaaw ga nag loxo nit dugg na ca li ñuy tuddee tawraat tey du dëgg dëggi tawraat waaye gëm nañ cosaani tawraat ñuy tuddee linjiil tey du dëgg-dëgg jiil hmm. waaye gëm nañ cosaani linjiil hmm. bu ñu la fi tegaloon ñaari koppi kafe hmm. yow kafe rek nga bëgg ni man ñu ne laa ñaari koppi kafe ngi nii benn bi nag euh, poson da ci rot waaye xamuñ bañ la ci ñaari boo bëggee mucc dangay ngay tuur ñaar yëpp bul ne naa tollale mën naa am benn bi amut gannaaw ñoom seen téere yàlla wax nañu ne seeni loxo dugg na ci ba def ci taxrif hmm. kon lépp la ñuy delloo hmm. ne du waxi yàlla hmm. allahuma lu dut loo xam ne nag dëppoo nag li ne ci alquran te alquran doy nañu walis loolee lu ko sama borom waxee ci suratul baqara ñi nga xam ne dañuy indi dara ne lii ci yàlla la jógee te fa waylun lilladina yaktubuuna alkitaaba bi aydihim summa mm-hmm. yaquluuna hada min indillahi mm-hmm. liyashtaruu bihi thamanan qalilan mm-hmm. fa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuun wa rusulihi gëm tamit ay yonentam wax ne ne yàlla am na téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne anbiyaaw mm-hmm. ñett fukk ya ñetti téeméer ya ak fukk ak ñett mm-hmm. ñoo cay rusul kon kullu rasulin nabiyun wala aksa mm-hmm. bépp rasul rek nabiyu la waaye duwul ne bépp nabiyu rasul la ñetti téeméeri ak fukk ak ñett mbaa ñetti téeméeri ak fukk ak juróom ci ixtilaafu riwaayat mm. yàlla tudd na ci ñaar fukk ak juróom ci alxuraan mm-hmm. ñoom ñëpp nag juróom yee ci gën yàlla tudd leen ulul azmi min ar-rusul mm. id axadnaa min annabiina mithaqahum mm-hmm. wa minka mm-hmm. gis nga moom mujjee dikk waaye moom la njëkk a tudd ndax mooy seen sang wa minka mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa min nuuxin wa ibrahima wa muuse wa isa bni maryama wa axadnaa minhum mithaqan galiza Mm-hmm. ñoo ñooy ulul azmi mm-hmm. fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul mm-hmm. waaye ñoom ñëppit yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy seen sang gannaaw yonentu ibrahima ci topp wa afdalul xalqi jamian ahmadu wa baadahu alxalilu nicma sayidu loolu la boroom ashalul masalik wax wa yowmil axir gëmit bés bu mujj bi muy bés bi yàllay pencoog jaam ñi nga xam ne ba mu ñu bindee ba bi ñuy dajeeg moom lépp loo xam ne ñu ngi koy def mi ngi ko enregistré enregistré loo ko ay malaaka waaye enregistré loo ko jamono ak bërëb waaye enregistré loo ko sax suñ jëmmi bopp yi maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid ak wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin ba pare it wa qaalu li juluudihim li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay ak yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yacmaluun yowma idin yuwaffihum allahu diinahum alxaq ak fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina wala naqussanna alayhim bi ilmin lu tax wa ma kunna ghaibina waaw yii yëpp ay formalité la waaye man sax fàddu mosuma fàddu mm-hmm. maa ngi fi maa yakunu najwa thalathatin illa huwa mm-hmm. rabi'uhum mm-hmm. wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu ak wa huwa ma'akum aynama kuntum ak wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil waridi mm-hmm. ak wa naxnu aqrabu ilayhi minkum mm-hmm. walakin la tubsir mm-hmm. wal yawmil axir waaw kay wa tumina ak nga gëm gëm gu wér bil qadari ci dogal xayri wa wa charri ak xaywa xayri bu neex ba wa sharri ak bu naqari mm-hmm. moo ngay gis ci sa téere fiq yi ñu cay yokk wala yeneen téere tawxiid xulwi wa murri yi mm-hmm. nga nga gëm dogal mm-hmm. ndem dogal bu yiw la dara mënta am ci àdduna ci mbindeef mi lu dul ci coobaree borom bi wa sharri ak safaan ba dara mënta am ci mbindeef mi lu dul ci coobaree aji bind ci waaw mm-hmm. ah, xam na ko waaye moom moo nangu ci coobareem loolu am coobareem nag la kenn mënta firi mm-hmm. innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun mm-hmm. liman shaa minkum an yastaqima waaye nag wa ma tashaa'una illa an yashaa allah illa an yashaa allah ma shaahu kaana wa ma lam yasha lam yakun hmm. Hmm? Hmm. naka la ko waykat bi waxee ma shaa kaana wa illa lam yakun ida qadi amran yaqulu kun yakun dara du xew lu dul xam na ko alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latifu lxabir dara du xewit lu dul ci dogalam la xewe moo xam mu neex ñu mbaa mu naqadi ñu hmm. mën nañoo neex foog hmm. ne ñu foog ne moo gën ci ñun fekk sa gënut hmm. mbaa mu naqadi ñu ñu ne moo dafa bon ci ñun fekk bonut asa ak asa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kathiran qaala kii doon laaj ne sadaqta wax nga dëgg mm-hmm. encore mu confirmé ti mm-hmm. qaala mu teg ca ne mm-hmm. fa axbir ni xabaare ma ma an il ixsaani qaala mu ne ko an taabuda lixsaan daal ci luga mooy firi rafetal waaye dëgg dëgg lixsaan an taabuda mooy nga jaamu laaha yàlla kaanaka daanaka yow taraahu yaa ngi koy gis mm-hmm. ndax fa in lam soo nekkutoon fa in lam dem nekkuloo mm-hmm. taraahu di ko gis fa innahu moom yaraaka mi ngi lay gis mm-hmm. lixsaan mooy nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi janoog sa borom ngir ne soo gisut yàlla mi nga janoog xam nga ne moom mi lay gis wala lixsaan ñaari degré la hmm. nga toll ci di ko jaamu hmm. mel ni yaa ngi janook moom hmm. soo amut loolu nga jaamu ko xam ne dëgg-dëgg moom mi ngi janoog yow ndax nañ ko sànq foo ne rek mi ngi nekk yow Cheikh Tidiane radiyallaahu waxuma la mi ngi nekk yow ci xam-xamam ci ko borom xam-xam yi waxee waaye mi ngi nekk yow ak jëmmam ni nga xamee ne nag mënoo xalam mm-hmm. jëmmam mm-hmm. néeg xànd gi it mënoo ko mm-hmm. xamal ne mi ngi fi rek waaw jaamu yàlla nag bu fugloo teewaayu yàlla fugloo ne mu ngi seedu yàlla dana toroxlu dana ko jaamu ni mu ko war a jaamu dana ko jaamu jaamu bu gën a rafet loolu nag du julli rek du woor rek du aj rek waaye doomu aadama ci yëngatu bu muy yëngatu rek na xam ne mi ngi ci ngàllu gi ni ñu waxe woon démb ne lekk aada la mm-hmm. waaye soo ca yéenee dëgërlu ngir mën a jaamu sa borom muy jaamu yàlla mm-hmm. naka noonu jëf yépp nag mm-hmm. jëf yépp mu ciy seetu aji teew ji nga xam ne du fàddu mukk subhaanahu wa ah, nga xam ne li tax nit ki gisu ko rek mooy gis gi gis gi mu gis leneen waaw yàlla yi ñu ne fa in lam takun tarahu soo nekkutul rek tarahu nga gis ko waaw falawlaa rukoonu alaalamina li gayrihi raahu ciyaanan walilaahu qaribu alxaaji Maalik wax na ko ci xasidaam ju rafet jooju waxi Cheikh Tidiane Chérif la wéy mm-hmm. ne li tee nit ñi gis seen borom mm-hmm. mooy jeng gi ñu jeng ci lu dul moom rek mm-hmm. waaye yàlla gën naa jege ci ñu bañ ko gis wa laqad xalaqna al insaana wa naclamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil waridi waaw ki la gën a jege sa bopp boo ko gisul am na lu tax ki la gën a jege sa bopp waaw boo ko gisul am na lu tax fa lawla ida balagatil xulquuma wa antum xiina idin tanzurun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu qaala mu daal di continuer laaj fa axbir nii xabaare ma an saati bés penc ma ngay laaj kañ hmm. qaala yonantu ne ko hmm. sallallahu alayhi wa sallam mal mas'ulu ki ñuy laaj anha hmm. ci bis penc bi alama mu koy gën a xam min as-saa'ili ki koy laaj loolu nag mën naa firi ñaar dana firi yonantu xamut ko ndax yàlla moo ne inna allaha indahu ilmu wa yunazzilu l-ghaytha wa ya'lamu ma fi l-arhami wa ma tadri nafsun maadha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir yàlla xam juróom yi waaye waxut nag xamul ko kenn kon am nañu ne yonent daf ko xamul moo tax mu ne ko ki ñu koy laaj gënu koo xam ki koy laaj kon ñun ñaar ñëpp xamuñ ci dara wala ki kiñ koy laaj gënu koo xam kiy laaj mooy ñoom ñaar ñëpp xam nañ ko mm-hmm. waaye amul ndigalu nag wax ko mm-hmm. amul ndigalu wax ko mm-hmm. te looloo gën a jamtu ndax yonentu wax na ne ci rañaanam bi jox nañ ko xam-xam yi way njëkk way mujj te xam-xam yi yi yi mujj xam bés pénc ci la bokk waaye mën naa dafa bokk ci fa awxaa ilaa abdi ma li ko yàlla yootal te moom rekk mook sama boroom ñoo ko war a xam mm-hmm. wala jibril xam na ko sax moom it waaye yonentu sallallahu alayhi wa xam na ne amul ndigalu leeral ko mm-hmm. waaye kiy laaj dafay laajee foofu ngir leneen la bëgg laaj mooy lan li ñuy jëriñ ndax xam kañ la bés penc di ñëw mm-hmm. amalum ñu njëriñ waaye xam ay màndargaam ngir ñu tuub jëm ci yàlla moo ñu amal moo tax mu ne ko faax bir ni xamal ma bokk an amaaraat yaay mandargam mm-hmm. yi wane ne jege si na mm-hmm. fa euh, qaala yonentu sallallahu alayhi ne ko bi ci njëkk an talida mooy jur mm-hmm. lëmatu jéebéer rabbataha boromam loolu nag am na ay firi buñ demee ba doomi jaam yi bari muy jàpp jaam yu jigéen da ca ami doom suñ demee ba loolu bari te ummul walad su jëkkatam dee su boromam dee rek dafay gore kon mel na ni jur na ki ko goreel jur na sax boromam ndax kim jur kim jur doomi ki ko moom la loolu firin la walla antarikal amatu rabbataha mooy li xew tey ci société nga xam ne doom yi ñoo yilif bàyyi yaay li neex doom yi ci la yaay yi nekk mhm. mu nekk njabootu kanaara mhm. kenn yilifatul mhm. doomam su demee ba kenn mënatut a yilif sa njaboot xamal ne yowmal qiyaamati jege wa an tara ak ba nga gis alxufaata woy fàndañ luy mooy ñi nga xam ne ñàkkoon nañu ba amuñu dàll yuñ sol tànki neen la ñuy def alxuraata woy raflewu ñi nga xam ne amuñu woon sax yére yuñ sol alaalata ñi nga xam ne way ñàkk lañu riaa ashaa'i mm-hmm. daa sàmm gàtt mm-hmm. boo demee ba gis leen ite taawaloona ñuy guddilante ñuy kontu ñuy compétir mm-hmm. ci kan a gën a guddule fil bunyaan ci tabax demee ba ñooñu di guddilante ay étage ak i gratte-ciel xamal ne bés penc jege si na boo demee ba ñu gënoon a ñàkk euh, yàlla leen gan ba ñuy concurrencer mm. euh, àdduna ci kan a gën a guddule taax mm. te loolu tey ku dem ci golf bi mm. danga ko gis koo xam ne juróom fukki at ci ginnaaw ay mbaara fi nekkoon ak i xayma tey tabax yi gën a gudd tey ne fa ñoo xam ne ay sàmm la ñu woon tey boo demee seeni dëkk doo ko xàmmee ko Hollywood ndax foofu la jublu walla feneen mm-hmm. li ci mën a xew daal nee na boo demee ba ñi ñàkkoon di euh, guddulante gën a guddulante tabax hmm. daan ne ci àll bi hmm. tey ñooy gën a guddule euh, kër ñi ne ci taax yi hmm. walla àll bi soppeeku taax xamal ne yëf yi jege si na ndax yàlla du tukkal àdduna mukk lu dul taaral na ko ba waa àdduna foog ne yëf yi dootul jeexati xata ida axadat il ardu mm-hmm. zuxrufaha mm-hmm. wa zayyanat mm-hmm. wa danna ba jortu sax ahluha ñooñ àdduna ne annahum ñoom qaadiruna alayha jekku nañ ko waaw ah, dem ba technologie toll foo xam ne nit ñi foog nañ ne lii moom dootul jeexati mukk mu ne ataaha nag ci la koy dikkal amruna sunu mbir laylan aw nahaaran guddi mbaa bëccëg fa jaalaha fa jaalnaaha nu def ko xasidan muy ngóobit ka an lam tax na binam si ni dara mosu fa nekk sax démb kadalika nufassilu laayaati li qawmin yatafakkarun mm-hmm. mu ne ko fa axbiranaa maa ra'ayta qaala an talida l-ummatu rabbatahaa mm-hmm. wa an tara al-xufaata al-curaata al-caalata ricaa'a ash-shaa'i mm-hmm. yatataawaluuna fi l-bunyaani bi nga xamee ne yonent bi wax na loolu qaala Seydina Omar ne thumma gannaaw gan talaqa waa ji dem fa labistu ma sax maliyan ab diir summa qaala li yonentu sallallahu alayhi wa sallam daal di ma ne yaa umaru e yow umar atadri mba ndax xam nga mani saa'ilu ki doon laaj kana qultu ma ne ko allahu yàlla de wa rasuluhu ak ndawam lu baax li aalamu ñoom rekk a xam saxaaba yi xataa luñ xam sax bu leen yonentu laajee dañuy wax ne yàlla ak yonentoo gën a xam toog nañ dëgg qaala ñu ne qaala yonentu ne mm-hmm. sallallahu fa innahu ki doon laaj de jibrilu la mm-hmm. ataakum moo leen dikkaloon yuallimukum pour xamal leen mm-hmm. diinakum seen diine xadis ji rawaahu solo na ko muslimun limaamu muslim ci saxiixam mooy xadis yoo xam ne bokk na ci xadis yi gën a boole xam-xam yi ñu xam tey di ci jaamoo yàlla yépp xadis ji moo leen tënk mm-hmm. walla mooy seen cosaan mm-hmm. lim jàngale ci ngëm mm-hmm. boo demee ci laaya alxuraan yi wax ci wàll googu moo xam yi wax ci yàlla yonant ak téere yeeg bés penc yeeg malaaka yeeg dogal yépp la boole xam-xam boroom xam-xam yi dajale jële ci alxuraan dajale jëlee ci waxi yonantu sallallahu alayhi wa defar ca xam-xam bu ñuy tuddee xam-xamu tawxiid wala xam-xamu aqida boo demee ci lislaam juróomi ponk yi nga xam ne ñoom la tudd yooyu lañu boole jëlee ci alquran ay ya cay wax jëlee ci xadiis ya cay wax moo xam julli la mbaa woor la mbaa azaka la ak ya ca aju tënk ko tuddee ko xam-xamu wéq ak lépp loo xam ne aju na ci li ñuy ni ñoo jaamoo yàlla bu dee lixsaan mm. muy ak rafetal gi mu wax ne mooy ngay jaamu sa borom mel ni yaa ngi koy gis mm. soo ko gisutit moom mi ngi lay gis mm. moom la boroom xam-xam yi dem ci biir alquran fekk lay wax ci mbiru lixsaan yépp ndax lixsaan mbiru xol la mm-hmm. xam seet ay yi wax ci tuub yi wax ci istiqaamatu yi wax ci lixlaas yi wax ci ragal yàlla yi wax ci yaakaar ko yi wax ci muñ yi wax ci sant yi wax ci dëddu yi wax ci wakiilu yi wax ci gërëm yàlla yi wax ci sopp yàlla yi wax ci xam yàlla yépp dajale ko tuddee ko ilmu tasawufi moo tax ñetti xam-xam yi yépp ci ñetti yi la balle moo tax ñoom la ñuy tuddee maqaamaatu diin asalaas mm-hmm. bu dee bu njëkk bi islam mm-hmm. qul tawbatun maa istiqaamatin tuqa manazilu lislaami niltal muntaqa mm-hmm. tawba listiqaamatu ak taqwa ñooy manazilu maqaamaay lislaam bu dee liimaan manazilam assidqu wal ixlaasu wa tumaaninatu alsidqu wal yaa ixwaani kada tumaaninatu lil imaani yooyu ñoo ñooy manazilul imaan boo yéegee ci lixsaan nag muraqabatu ak mushahadatu ak maarifatu ñooy ñetti manazilu maqaamaay mm-hmm. lixsaan mm-hmm. tawbatu mm-hmm. moo ci njëkk maarifatu moo ci mujj moo ci gën a kawe waaye tawbatoo ci gën nag ndax bu tawbatu amut maarifatu di am du am at tawbu afdalu min al maarifati tub min at tawbati bil maarifati hmm? moo tax ñu ne xaqiqatu tawbati maxwu tawbati tub naa min tawbati bil maarifati yal nañu yàlla booleel maqaama yi yëpp booleel ñu manazil yëpp te xamal ñu boppam defal ñu dégg ak topp waa xadis yi buñ ko dee sharaxa dana jël waxtu wi yëpp te dañoo bëgg a tënk rek ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam